salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa senegaal ah maa ngi nuyu yëpp di képp koo xam ne rek soppee Dieyla nga amaana génn di wax sax du sama mënin waaye mbir am na fu muy toll faaw nga leeral parce que dama am ay way jur dama am ñu ma bëgg dama am famille depuis boobu ba léegi nag maa ngi dégg wax bu ñaaw bu nekk ñu teg ko sama der man Dieyla comme xam-xam ne doxuma ci lu dul fulla ak fayda ko ma xam-xam ne liggéey teral samay wayjur rek moo ma ñor te ku ma xam-xam ne tamit. hôtel bu ma fa duggee liggéey moo ma fa duggul suma paree jeex na video bii nag ngeen di gis sama anniversaire la ma jaar fa ñuy foo di kaf di reetaan et que ñëpp ñi ngi fa woon yaayam mi ngi fa woon ay frère am ñi ngi fa woon sama sœur mi ngi fa woon ñëpp ñi ngi fa woon ki génnee vidéo bi nag daf ko génnee jël partie bi ko gën a intéressé roñe ko ndax lan ndax bëgg ma yàq waaye nag lépp lu ci war ñu dinañ ko def gars yi de grâce dama am famille dama am carrière te li mu bëgg li ma soxla tamit du lii li may ñaan yàlla mooy ngeen gunge ma soutenir ma ñaanal ma parce que am naa yéene boo xam ne bëgg naa yóbbu musique tamit fenn fi am naa yéene bi et bëgg naa ko loolu rek laa leen ñaan di jégaluwaat ñëpp di jégaluwaat ñëpp di jégaluwaat tamit samay soppe di jégalu képp koo xam ne rek gis nga vidéo bi neexu la di jégalu samay soppe bu baax a baax.